suñu avance ba mhm. jox ñu licence bi ñu mhm. bëre loola mhm. tey booy bii di bëre suñu grand combat mooy euh, alxames balen, balen bi waaw bu ndaw ren dugu dugg ci làmb baleñ ren la dugg ci làmb trois combats trois victoire ren nga jox ko grand combat ma jox ko grand combat mais foofu damay leeral nit ñi di indi grand combat grand combat moom spécial na waroon bëre mm, spécial la waroon bëre parce que grand combat dafa yàqu parce que ñu monté woon moustique mm. ak mm. blessé ci Mm-hmm. grand combat bi yàqu mm-hmm. moom mi nga xam moo doon bëree spécial bi mm-hmm. grand combat xajaatul ci diggante bi ñu yéegal ko bi ñu ko yéegalee mu mu mu vraiment sansam la sansam tey boo demoon géejawaay nit des ko ah moom géejawaay la dëkk open press bi mu defoon macha allah mu nekk xale boo xamante ni parce que li tax ma ma ma opté pour tëgg ko dama ko daan fekk muy yendu aron national yendu di wut combat Oh, xam nga man chaque jour maa ngi arène. yow kay doo yow moom arène nationale lu fa xew. su ma ñëwee dama ko fekk mu tëdd ci karo yi. ndeysaan ma na dëkk mais day wut combat. Mhm. am na licence mi ne na ko mais koo kay dugal ko ci journée yi. Mhm. woo ko ma ne ko booy est-ce que bëgg nga bëre mercredi. mu ne ma grand sax boo mu joxe combat man bëre rek. naa am combat naa am combat rek. ma ne ko demal nga préparé am nga combat. ci mhm. lendemain ci na ñëw ñu monteel ko combat. ba joon yàlla tey ci na daan. vraiment indi mbooloo mu doy waar. ñu tëggaat ko mu daan fuuta tëggu ko combat bi passé spécial mu daan. moom moo ñëw ne man maa ñëw trois mois. bëre grand combat lool nay bàkkoo loolu nay waye waye wax na dëgg de vraiment mu nekk xale boo xamante ni xale bu bu bu kii mhm. ñii ñu tëgg ni ay Papa Balde yi jëm Papa Balde numéro deux maa leen maa génnee ci làmb ji maa leen génnee yi nañ nekkoon mhm, ñi ci bari ñi fi nekk ñëpp ci mhm. Ousin production nañ jaar ba lii nii am Mhm. mais ne damay wax toujours rek ñun bu ñu mënee rek journaliste yi la yéen la. Ah, parce que da ngay dégg ñu ne ma borom mercredi. Mhm, waaw borom mercredi tey. fu ma tourné dañ ma day ñëpp sa étiquette la moom. <laughs> dañ ma koy wax borom mercredi. kon loolu sant yàlla la. Mhm. ñaan yàlla nag li nga ni moom nañu opté woon pour def ko. di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu yeggale suñu yéene. jeudi incha allah. ba lépp jeex. damay wax naan ren trois cent litres nañu waxoon. déwén bëgg nañ ko def wala ñu def quatre cent. trois cent wala quatre cent wala ci condition. yàlla ko yàlla réussir loolu. condition bi mooy. condition bi mooy. dafa am yenn dépense yoo xam ne dafa métti ci ñun. Hmm. dafa métti. dañ lay teg ay dépenses yu métti ci mercredi. dépense làmb amul wàññi. Hmm? amul wàññi. ah yow mercredi. amul dara loo xam ne dañ ma ko wàññil.